donc loolu mo indi li ma dem euh, ñëw Sébikotane wo samay xarit wo samay am di jamm après dem gis maire ñun ñëpp ñu ki ñu def sur première édition en 2022 euh, ça a été une réussite d'après les gens parce que pendant des jours les artistes plasticiens jóge ont nekk Saint-Louis ñu jóge Ziguinchor ñu jóge Louga partout ñu ont fait des filles, def ben ben une résidence euh, après nak ñu la ñuy def euh, fi ñuy def kii bi ñuy def euh, vernissage bi mais c'était vraiment bien d'après les gens neexoon na trop le nak moo tax ñu xalat def deuxième édition bi malheureusement avec les événements politiques on n'a pas pu faire ça cette année nak defaat deuxième kii bon avec nag changement amul résidence parce que biennale bi dafa jege ñu ne kon am na benn artiste bu fi nekkoon boo xam ne ñëwoon na première édition bi te xam nañ ne xale la il sort de l'école des arts suñ ci jàppee xëy na dana ko mën a promouvoir ñu woo ko waxtaan ak moom donc moo tax loolu la doon xaar ñun tamit ñu def suñu ay kii moo tax loolu mu indi lii tey cette année dañuy def dañuy dañu choisir benn artiste mais. Euh,

man na suñu admission dara dem fu sori soo gisee cette année ñu amoon ñu dem jëli ku mel ne Kalidou cassé pour que tout le monde connaît c'est que dañu bëgg a tôt ou tard ñu implanter ay maison d'art à Sébikotane compte tenu de son de sa position Sébikotane nu ma ko waxee dama bëgg mu nekk carrefour des arts parce que nous mu placé woo entre Dakar Thiès partout pour demee Sébikotane ngay mujjee pourquoi pas fi nekk surtout les aéroport bi ak ak train bi donc c'est du côté, tax mën que ben euh, creusé. Comme bu xam ne ñëpp fi non seulement pour art plastique mais nag yeneen ak yeneen ndax déjà y a des musiciens qui a vu aujourd'hui a beaucoup de choses musique plus mais c'était pour faire plaisir aux invités nit jógee jigéen soo wala feneen ñëw ba deux heures de temps mu ngi bi donc nañu créer affaire on a pensé à un artiste Donc on aussi Khalil la nekk des arts euh, am euh, amoon euh, na dem finaliste sax seen petit galle mën na fooy en couleur, en français en wolof ñu ne kon la ñu def enracinement et ouverture quelqu'un qui sait chanter en wolof en couleur, en français moo tax ñu indi ñu indi Omar donc c'est pas c'est pas un hasard tout ce que l'on fait c'est la promotion des jeunes euh, je suis très content euh, parce que nga nga woote ñëpp ñëw wax dëgg yàlla dara gënu ko neex j'ai retrouvé ici beaucoup d'amis des amis d'enfance gis naa fi ay suñuy collègues d'ailleurs deuxième partie bi këli taxaw nga leen su ma nekkoon censeur lycée bi mën naa def mën naa def parrain donc parrain bi tegu rëcc xaalis mais c'est des amitiés des relations euh, moo tax kontaan naa trop kontaan trop trop maa ngi gërëm ñëpp gërëm kontaan naa